wala quwata illa billahi al aliyi al azim ah tey nag ñu ngi fii ci barabu Cheikh Seydi Ahmad Tijani radiallahu tabaraka wa taala anhu yàlla def nag ñu fekkante fekk kenn ci soppe Cheikh Seydi Ahmad Tijani yoo xam ne kenn dootu ko présenté mbokk yi ñuy dajee e- e tabaarakallah ay soppe ci kanam soppe bu mag bi ñi imaam Mouhamed Ndiaye ñuy daje fii ci Fass moom tey la ñëw ñu nit ñu ñëw tey tabaarakallahu jotaay bi tey fii ci kanam Cheikh Tidiane lañ koy enregistré xam naa moom fii bëgg naa eh, toroxloom ak suufeel boppam nar naa tax mu gàntu sax waaye kanam Cheikh Tidiane kenn du fi gàntu dañ koy bàyyi mu dimbale ñu rek bu réer daf ñuy liiral ñetti Eh, eh, bind sax ci sunanu salaati boo ko defee ñu firi boo ko defee incha allah tabaraka wa taala ngir yàlla barkeel jotaay bi barkeelal ñu ñun ñëpp yaa rabbi imam bismillah bismillah wa amma sunna salaati isna ashara assuratu baada alfatihati fi rakaati alula والثانية والقيام لها والسر fi ma yusaru fiihi waljahru fi ma yujharu fiihi wa kullu takbiratin sunnatun illa takbiratu lixraami fa innaha fardun kama taqaddama wa samia allahu liman xamidahu lilimaami walmunfaridi waljuluusu alawalu wa zaidu ala qadri alsalaami min aljuluusi alsaani wa raddul muqtadi ala ala imaamihi salaam wa kadalika radduhu ala man yasaarihi in kaana ala yasaarihi ahadun wa sutru lil imaami wal fadli in xashiya an yumurra ahadun bayna yadayhima macha allah macha allah jazakumullah xeyran fadilatal imam ngeen baal ñu nag kàddu gi moom du yëgatiku ndax kanam borom jotaay bi la eh, Cheikh Abdul Bari <clears throat> Cheikh Abdul Bari al Ashmawi rahmatullah alayhi gannaaw buñ jàngee faratay julli barki démb bi jànguñu ndax ñu ngi ci yoon yi nee na wa amma sunanu salaati daal sunnay julli fatna achara fukk lañ ak ñaar bu njëkk bi nee na suuratu mooy saar baadal fatihati gannaaw fatiha ñu déggee ci ne boo ko njëkkee woon soog a jàng fatiha dikkeewoo sunna fokk nga baamtu ko gannaaw fatiha fi rakaati ci raka al ula bay aji njëkk wa thaniyati ak ñaareelu raka julli gu julli gu mu mën julli gu mu doon ci julli farata yi suura mi ngi nekk sunna ci raka bu njëkk bi rakka ñaareel bi bu suba la bu dee timis la bu dee la bu dee takkusaan la bu dee tisbaar ñu déggee ci ne ñetteelu rakka timis ak ñetteel ñeenteelu tisbaar ak takkusaan ak gee fatiha rek lañ ciy jàng wal qiyaamu ak taxawaay laa ñeel ko jàng gi ngay jàng saar sunna la taxaw gi ngay taxaw jàng ko sunna la sunna la nag ni ñuy firee sunna ci usol ak ci fiqhu mooy loo xam ne ki ko def dañ ko bindal tiyaabo waaye ki ko deful duñ ko bindal bàkkaar loolu nag dafay wutee fii ndax buñ ne saar sunna la ak taxaw jàng ko sunna la nga daal di jàng fàtte ba pare toog jàng saar ne ak taxaw jàng ko sunna la du ñàkk gi nga ñàkk def sunna gi mooy yàq julli gi waaye ixlaal gi nga def ci taratubul adaa yi ak ni julli war a nidaamu salaat yi looloo yàq julli gi moo tax ëpp na sàgganee wa amma sunanu salaati fasna achara bu njëkk ba mu ne assuratu bada alfatixati fi rakaati lula wa thaniyati ñaareelu sunna wal qiyaamu taxawaay ba wa sirru ak jàng ndànk fi ma ci loo xam ne yu sarru dees na yellu fii ca moom fépp foo xamee ne des fa war a yellu yellu fa wala des fa sàkku yellu fa yellu fa sunna la niki ñaari ràkka yu njëkk ci gée ak ñaari ràkka yu suba ak ñaari ràkka yu njëkk ci timis ah, ngeen baal ma ñaari ràkka yu njëkk ci tisbaar ak takkusaan ak ñaari ràkka yu mujj ci gée ak ràkka bu mujj ci timis jàng li nga fay jàng ndànk sunna la wal jaaru ak biral mooy jàng ca kaw fii ma ca la nga xam ne yu jaaru dees na biral fii ci moom niki ñaari rakkay timis yu njëkk ñaari rakkay gee yu njëkk ñaari rakkay suba wa kullu takbiratin bépp kabar sunnatun sunna la allahu akbar yi ci julli yëpp sunna la yëpp mu ne ah illa takbirat al ihrami lu dul kabar ak xaraf gi kabar wi nga xam ne moo lay dugal dugal ci julli gi fa innaha nee na naka moom fardun farata la kama taqaddama ni mu jiitoo ci farataay julli yi njàngoon wa bokk na ci sunna yi sami allahu liman xamidahu wax sami allahu liman xamidahu pour ñëpp mu ne déedéet lil imaam yi ñeel ilimaan wal munfaridi ak kuy julli moom kot ñu déggee ci ne maa moom du wax sami allahu liman xamida moom rabbana walaka ka lay wax dana ñëw wa bokk na ci sunna yi al juloosu jotaay al aji njëkk jotaay bi nga xam ne mooy jotaayu taaya bi ngay taaya bokk na ci sunna mooy wa zaidu ak aju dolleeku ala qadri salaami ci jotaay bi ngay jotaay kem sa sëlmal waxañ nañ ne jotaayu sëlmal farata la fi ngay waxe assalaamu aleykum toogaay ba nga fay euh, toog farata la waaye la yokk ni ki jotaay bi nga jotaay gannaaw taaya bi di def salaatu ala nabi kooku sunna la waaye nag waroon naa gën a leeral ndax jotaayu salaatu bi sunna la waaye jotaayu ñaan ga ndax ñaan mën la kon jotaayam dafay topp atteeb ñaan ga kon jotaay bi ngay toog di ñaan bala nga sëlmal gannaaw boo defee tashahud ba julli ci yonent bi jotaay boobu dañ ko sopp ndax la fay def luñ sopp la muy ñaan mu ne wa zaidu ak aju dollee ko ala qadri salaami ci kam jotaayu sëlmal ba minal juloosi tukkee ci toogaay athaani bay aji ñaareel toogaayu ñaareel ba mooy toogaay bi nga toogee def sa eh, tashahud mm-hmm. ndax ñaari toogaay yëpp sunna lañ waaye toogaayu ñaareel bi ndem julli goy am ñaari toogaay la mooy am jotaayu sulmal bu dee julli guy am benn toogaay la topp ca jotaayu seede ba dolleeku ci jotaayu sulmal ba la jublu fi waraddul muqtadi bokk na ci sunnay julli delloo aji roy sëlmal wala assalaama salmal ala imaam yi ci ilimaanam ilimaan boo waxee asalaamaaleykum yow mi roy ci moom boo salmalee ba pare delloo ga nga koy delloo kooku bokk na ci sunnaay eh, julli wa kadalika naka noonu ilimaan nag nee nañu bu newee ci barabam ak bu fa jógee yëpp nga delloo ko sëlmal sunna la wa kadalika naka noonu radduhu delloo salmal ala man ka nga xam ne ala yasaariha ci nekk la ci càmmoñam in kaana ala yasaariha ahadun jumla ju mujj ji man mooy firi ne am na ku nekk ci càmmoñam hmm. ah, hmm. nga xam ne ala nekk na wetu càmmoñam in kaana dem nekk na ala yasaarihi ci càmmoñam ahadun kenn xam nga su fekkoon dafa wa raddu <clears throat> salaami ala yasaarihi in kaana ala yasaarihi ahad mm-hmm. ñu xam ne mu leer waaye comme wax na man ala yasaarihi euh, jaratut mu koy baamtu wa suturatu ak sutura mooy li ñuy teg ci kanam lil imaami ñeel ilimaan wal ak kenn li aji julli ji teg ci kanamam ngir bañ ku ko muy sampu satr ilimaan imaam Njaay moom a gën a dégg wolof suturatu ak samp satre imaam yi ñeel ilimaan ji wal fadli ak kenn muy wene ne maamoom du ko samp lu tax maamoom ilimaane yi satram ñu samp ko nag in xashiya ndem ragal nañ an yamura ba romb ak axadun kenn bay ne day ma ci seen kanam ñu wuuteeg yeneen ngir yi nga xam ne ñoom ragal ak ñàkk ragal a ci yam dañ koo def sunna mutlaq waaye sunna mutlaqa ñi ci euh, euh, ngir mi nag moom la borom achma bi di jàngale nee na sampu satr ilimaan a koy def wala kenn kuy julli su fekkee ne ragal nañ ku romb fa ñuy jullee hada wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa axiru abyaat yi nga xam ne moom lay ñëw tabaarakallaahu nuyoo Cheikh Sidi Ahmed Tidiane di ci ñaan suñu borom defaral ñu ki suñu zaahir ñun ñëpp ak suñu baatin ñun ñi fi ñëw ziyaare si ak ñi nga xam ne bëgg nañoo ñëw ak ñi mos a ñëw ak ñi ñëwagul yëpp xafida rasulillahi xatma alwilayati wa taaja aha lillahi xilfa alcinayati ateytuka min new york walqalbu gaafilun ateytuka yaa iksiiru baadi daraacati wa cindi min alamraadi ma allahu caalimun asiirun li shaytaani alhawa asiirun li shaytaani alhawa walgawaayati muqillun muraa'in fi lcibaadaati mufritun musirrun fa yaa wayli kathiru ljanaayati muqillun muraa'in fi lcibaadaati mufritun musirrun fa yaa wayli kathiru ljanaayati haa ana inda albaabi hal li bi jazbatin wa hal li bi waslin minka hal min riaayati fa innaka shamsun wa shuyuuxu kawaakibun wa anta wasilu lkulli duna diaayati fasilni bi xablillahi min gayri kulfatin bi himmatika alcalyaai tashfu shikaayati ilaahi bi hada alqutbi kun li wala takun wasilni bihi warfa مدى الدهر رايتي أمتني وأحبابي على ملة النبي وورد أبي العباس ورد الهداية صلاة وتسليم على سيد الورى مع الآل والأصحاب دون النهاية إمام قدم يعني بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد آمين يا رب العالمين آمين يا رب آمين يا رب صلاة تفتح لنا بها آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب العالمين آمين يا رب آمين يا رب العالمين كما برأت آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم آمين يا رب العالمين amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin amin la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah